إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk jullit yi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala jaam bi daa war fu mu toll di sant yàlla ñu ngi seede ne yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu te jaamug yàlla kenn dong yeyoo jàngale ko muy yenentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokk jullit yi suñu àjjuma ji wees ñi fekke woon xutba ba ña nga doon wax ci la nga xam ne mooy jaamu yàlla bu mag di sant borom bi subhanahu wa taala muy sant yàlla doonte ne ne doomu aadama bi bu doon am picc dañ naan pour mu naaw fokk mu am ñaari laaf yu mag benn laaf ba mooy sant beneen laaf ba mooy ak muñ mbokk muñ googee moo nar a nekk suñu waxtaanu àjjuma tey ji ak yan tegtal ya ca boroom xam-xam yi wax ne képp koo xam ne jaar na ca amul natt bu lay dal lu dul ni yàlla dana ko woyofal ci yow lu jiitu yow jullit da ngaa war a xam ne suñu boroom bi ñuy indi ci kaw suuf dañu fi indi pour nattuñu nattu boobu jagli lu ko yéefér yi ko moy bal bi mu koy wax ñun la woo ay yéen ñi gëm yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi gëm dee leen dimbinikoo ci muñ dee leen dimmilikoo ci baril ak julli te mooy jokkoo ak seen borom jalla wa ala lu waral loolu xam leen ne seen borom yàlla mi ngi ànd ak ñiy muñ mogaay yi ko yàlla tegul am nattu ndax da nga bokk ci ñiy muñ déedéet yàlla daa bëgg ñiy muñ yuhibbu sabirin yàlla ngi ànd ak ñiy muñ yàlla ngi nar a teral ñiy muñ ah boo amul nattu nooy bokk ci ñiy muñ kon la shakka ne yow jullit waajal suñu borom mu ne dinaa leen nattu bokk na nattu yee lam ci wax lu rëy yeneen ci fekk saxaabaam dañ daan génn jihaad ci yoonu yàlla léegi la ñu nekk ñetti téeméer bu ñuy nibbi si téeméer des fa ay loxo des fa ay tànk des fa ay bët des fa suñu borom nag mu ne ñooñu day bu leen jàpp ne dee nañ ci neen bal ña nga seen borom ñu leen di wërsëgal waaye yéen ñiy dund xam leen ne dina leen nattoo ci lenn ci ay tiitaange ñu ngi noonu tey jii boo demoon dëkk yu mel ne Syrie Irak demal ña nga xam ne nii ñooy ña nekk Centrafrique benn mbokk bu bokk ci ñun ñu ngi ko fa yónni mission ñu ñu naan nañ ko ñaanal ndax dëkk ba mu jëm ak nañ fay fitnaale jullit ñi loolee mbokk ak tiit la suñu borom mu ne dinaa leen ko nattoo danaa leen nattoo xiif na am tey jii boo déggoon lu mel ni li ñuy tuddee ay paam bi toppatoo affaire xiifu adduna bi dañ naan lu toll ci nangami millions doomu aadama ñu ngi ci xiif xatta suñu réew mi li ñuy tuddee période de soudure dañ naan la ay téeméeri nangami junni ñu ngi ci xiif loolee kon suñu borom mu ne dinaa leen ko nattoo gannaaw ba mu ne danaa leen nattoo jël lenn ci seeni bakkan ndey la bàyyi la soxna la doom la dëkkandoo la xarit la ila axiri danaa leen nattoo it wàññi seen alal sa nga doon liggéey ñu dàq la fa salaire fayuñu la ko sa xaalis réer sa dëkk daal di tàkk ila axiri waaye suñu borom mu ni su boobaa béggalal ña nga xam ne dañuy muñ ay yow mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na yàlla du bàyyi ak julit di ko teg ay nattu ba baa muy xëy di dox ci kaw suuf benn bakkaar dootul des ci moom loolu nag la ab jullit war a yëg heure bu natt ñëwee ci moom na am la gën a màgg xamal ne mbokk natt yooyu bokk na yoon ba gën a gaaw ci yóbbu la aljanna na la ko julli di yóbboo ak koor ak aj makka natt bi yàlla teg ci yow it dala yóbbu aljanna ba tax suñu borom mu ne sama jaam yi day muñ dañ muñoon jazaahum bima sabaru jannatan wa harira ban muñee ba dikkal ma dama leen fay ajjana yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul benn jaam boo xam ne yàlla dina jël ab soppeem soppe mën na nekk wayjur mën na nekk doom mën na nekk xarit mën na nekk kum mën a doon mu daal di koy mun mun gu rafet lu dul ko mel noonu ajjana laa koy fayee te it mbokk julit suñu borom ba mu teggee gaa yu baax ya yonent ya ak njiit yi diine ya def ne def na leen ay njiit bañu muñee ay natt ya bawoo ci yàlla loolu kon la julit war a xam su ko defee borom xam-xam yi day am na ay takk yu ñu takk yoo xamee ni nii képp ku ci bàyyi xel natt lu mu rëy rëy rëy yàlla dana ko woyofal sa xol takk bi jëkk yow julit xamal ne kat suñu borom yàlla la muy gërëm ci muñ mooy fa musiba bi dale bees ndax kat doomu aadama bi julli te géefëri ci bokk yam natt moom bu yàggee rek nga fàtte ko am maa nag ki nga xam ne bal natt bay bees ci moom ñëw nañ ne ko kat diw day dee na oto ba de tàkk na kër gi de nangam ila axiri lu dal ci yaramam bëggee yàqu na loxoy yàqu na ila axiri loolee fam day xës ci moom mu daa di dellu ci yàlla daa di rafetal ak muñam loolee la suñu borom yàlla gërëm ci muñ yonent bi alei salatu wasalaam ne muñ nga yàlla gërëm mooy fa natt bay dale mu ñu bëggee it ne amul kenn koo xam ne ba natt ba dalee di bees ci moom dana ah ñun day ay jaami yàlla lañu yàlla ñu moom te ci yàlla la ñuy dellu yàlla ñu moom kon mooy def ci ñun lu ko neex ci yàlla la ñuy dellu mooy buñ ko muñee mu fay ñu fa lu gën lam ñu nattoo woon borom boobu subhanahu wa taala ni bi yonent bi waxee loolu mu teg ca ne gannaaw ba yow jurit nga ni ay yàlla yal nag ma bindal pay ci natt bi ma teg ca wuutal ma lu ko gën yonent bi alayhi salatu wasalaam ne fokk yàlla dana ko wuutalal lu ko gën am na ci kenn ci ay soxna yu ko déggoon di ummu salama mu ne man day ba sama jëkkër ju baax ja abi salama faatoo ki nga xam ne bokkoon na ca góor ñi jëkk a gàddaay yi fekk yonent bi alayhi salaam ca madina léegi ma ne waaw ñaan naa ñaan gi yonent bi alayhi salaam wax waaye maa ngi xool mbooleem sahaaba yi ana kan lañ ci mën a joxañ baaraam ne kii moo gën abi salama yàlla subhanahu wa taala wuutal ma yonent yàlla bi ñoo takk ma boole ma ci ay soxnaam loolee kon mbokk day wone ne yow am natt heure bu dalee sa kaw ngal la waay bul fàtte loolu waxal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun day yàlla moo ñu moom te ci yàlla la ñuy dellu ay yàlla yàlla nag ma bindal pay ci sama natt bi ca wuutal ma lu ko gën suñu borom yàlla déggal na jaam yam tànn teg leen ay nattu ñetti mbég yoo xam ne képp ku xam diine du ko jënd àdduna bi ci biiram suñu borom mu ne déggalal ma muñ ko di nga xam ne fa natt dalee ca ñoom ñoom de dañu daal di dellu ne ñun ay jaami yàlla lañu te ci yàlla la ñuy dellu suñu borom mu ne ñii day yàlla dana leen tagg gërëm leen ca kanami ay malaaka seedaloo malaaka yi ay yéen sama jaam diw day gis ngeen natt bi ma ko teg ci bakkanam wala ci doomam wala ci alalam waaye gis nga dellu na ci man gën jaa rafete dellu gannaaw ba suñu borom mu ne dana leen yërëm ca mooy ku yàlla yërëm dana dox sa digganteeg la lay lor àdduna ak alaxira tey ñii ñooy ña nga xam ne ñoo jub te al hidaaya tege ci siraatu mustaqim mooy la gën a màgg lu doomu aadama di am ci kaw suuf looloo tax sunu borom farataal nu ñaan ko ko fukki yoon ak juróom-ñaar ci bés bu nekk mooy ihdina siraatu mustaqim loolee kon nga xam ni muy asalawaat di taggug borom ba arrahma di yërmandeem al hidaaya di ak njubam doomu aadama bi mi ngi koy amee ci mun natt ba yàlla teg ci kawam lii mbokk da ngay gis ne ab julit loolu la war a bàyyi xel ñaareel bi yow mbokk julit heure bu nattu dalee sa kaw na nga sant sa borom jalla wa ala ca mooy wolof moom danaan lii nattu la ay yàlla ko natt yéemelu ko fii su neexoon yàlla mu paase foofu mi ngi noonu benn soxna bu ñuy wax ummu umara nasibatu bintu ka ak neexoon sunu jeunes yi di xëm ci Sadio Mané ñooy di xëm ci ay Drogba ak ñeneen ak ñeneen ak neexoon ñu xam soxna soosu ummu umara nga xam ne keroog Uhud ba góor ña dawee moo jël jaasi ñëw taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na geesuma ndeyjoor lu dul maa ngi ko gis muy cor yéeféer yi geesuma càmmoñ lu dul maa ngi ko gis muy cor yéeféer yi umu umaara boobee dem na yàlla subhanahu wa taala natt ko mu amul ñaari doom benn doom ba ñu yónni woon ko ambassadeur ci muslimatul kazzab kooku doon woote na yàllaa ko yónni bañ demee ñu rey ko ba ñuy jihaat ak muslimatul kazzab mu dem ci jihaat ba ñu dagg fa benn loxoom mu ne alhamdulillah yàlla wërsëgaloon na ma ñaari doom wërsëgal ma ñaari loxo yàlla jël benn ba benn doom ba ak benn loxo ba bàyyi ma ak benn doom benn loxo maa ngi koy sant ndax bu ko neexoon jël ñaari doom yépp jël ñaari loxo yépp mbokk lii benn bind la boo xam ne ab julit heure bu ko nattu dalee war na bàyyi xel mooy man day su neexoon yàlla mu paase fii lu tax mooy xoolal dëkkandoo yi xoolal mbokk yi gis nga ci koo xam ne natt ba ko yàlla teg double na natt bi la yàlla teg yow loolu moo tax ba bari na koo xam ne ba ko natt dalee ci feebar mu yàlla jàpp na adduna tukki na ba mu demee hôpital daa fàtte boppam ñu ngi noonu ndax gis na yàlla teg natt ñeneen ñoo xam ne nii ah dañ koo ñee kon mbokk lii la jurit war di bàyyi xel fu mu mën a toll bokk na ci ñetteel bi mooy julit xamal ne kat nattu bu mu mën a doon suñu borom mi moom ay jaamam di def lu ko neex kenn du ko laaj lu tax mu def nangam moom moo bindoon avant muy bind asamaan yeeg suuf ci ab téeréem juróom fukki junniy at daa jële sama jaam tel day bi sangam danaa jël ay bëtam danaa jël doomam danaa yàq alalam wala danaa indi ay natt bu mu mën a doon loolu ba ko yàlla bindee yàgg na ngi noonu ba ngay nekkee sa biiru yaay la ko yàlla xamaloon malaaka yi ya nga xam ne ñooy topp la nga xam ne muy say dossier borom bi ne amul musiba buy dal ci kaw suuf wala buy dal ci seen bakkan illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha lu dul nekkoon na ci téréb yàlla ba loolee ngiree ngay bañ a doon kuy ñekki di saalit bay sori sa borom waaye bañ a doon kuy bew ca xéewal yàlla yàlla indil looloo tax yonent bi alei salatu wasalaam daan ñu wax ne ak yéeme mbiri julit julit daal léppam yiw la heure bu xéewal ñëwee mu sant mu nekk yiw bu natt ñëwee mu muñ mu nekk yiw loolee la julit war a gëm rafetal njort ci sa borom lépp loo xam ne dal na la rek rafetal njort ne yàlla borom yërmaande ji màgg ji yàlla mi ma gën a yërëm sama ndey ak sama baay su ma tegee lii rek daa fekk li moo gën ci man te loolu mooy yaqin bu ab jullit war a am ci lépp loo xam ne nii dal na ko suñu borom yàlla borom xikma bu màgg bi nee na wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun aka bari lu ngeen bañ ci natt bu leen dal et pourtant loolu moo gën ci yéen aka bari lu leen dal ngeen xiir ci lool pour bëgg caa jot yàlla xañu leen ko et pourtant ngeen bañ caa jot loolu moo gën ci yéen lii mbokk jurit da ko war a di bàyyi xel fu mu mën a toll borom boobu subhanahu wa taala it bokk na ci yow julit heure boo xamee ni nii nattu dal na sa kaw nga contrôler sa lammiñ contrôler sa jëf bul wax mukk lu la yàlla di jéppee ak i malaakaam heure bu la natt dalee yàlla yónni na ay malaakaam ni déglul leen na sama jaam bi lu mu wax su dee ne yaa ngi doon sant sa boroom di dellu ci sa boroom suñu boroom yàlla seedaloo malaaka yi ngërëm gi mu am ci yow ban yonent bi alayhi salaam nee na yàlla du nattoo benn jaam jël doomam lu dul dal wax malaaka yi waaw sama jaam bi bu ma jëlee doomam lu mu wax mu ne ah yàlla day moom xamidaka wastarja sant na la dellu ci yow mu ne tabaxal leen ko ci àjjana kër gu ngeen tudde kërug cant loolee mbokk da ngay gis ne bépp natt boo xam ne dal na la it na nangu na ci yàlla jalla wa ala la jógee yàlla ma ko teg ngir xool naka lay def ndax damay soolit wala damay dellu ci keneen ku dul moom wala damay jël mbir yépp delloo ko ko lii mbokk mooy la nga xam ne julit war na bàyyi xel ci loolu ay yow mbokk julit xamal ne it bokk na lu lay dimbali ci nattu mooy yàlla subhanahu wa taala day jaamam yi ma gërëm bëgg leen ñooñu lay teg ay nattu yonent bi alayhi salaam nee na ñi gën a tar ay natt ci jaamu yàlla yi mooy yonent yàlla yi gannaaw ba julit bu nekk yàlla dana ko nattoo fa diineem toll loolu tax yonente boobu subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala nee na ko wasbir kama sabara ulul azmi min rusul muñal comme yonent yu mag yi am dogu yi nañ muñe woon bu ngeen delloo laaj leen borom xam-xam yi yan natt la yàlla jaarale nuux alayhi salaam yan natt la yàlla jaarale ci ibrahim yan natt la jaarale ci muusa ila axiri waaye xatta yonente boobu yàlla naan ko muñal ndax demul jihaad ñu damm fa bañam ba tag fa jéem ba ndax demul jihaad ñu rey fa ñu gën a jege ci moom hëm sa baayam ba nga xam ne moo ko gën a la jege ndax yonente boobu alayhi salaam yàlla nattoowu ko woon ak ñàkk ba moom moo këram ñuy toog ay ñetti weer cin du fa tàkk ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla bàyyiwu ko ak noon yi ñu koy saboote naan ko dof nga njabarkat nga turiyaa nga lu ne lu ne lu ne ñu wax ko ko pour wane pour jéem a wàcc ay darajaam lépp suñu borom yàlla subhanahu wa taala dem ba naan ko xam naa ne innahu la la yuhzinuka alladi yaquluun li ngay wax métti na tiis na bu tar waaye nag na sa xel dal lii lépp yàlla tax ñu la koy wax mbokk kon loolu heure boo bàyyee xel ne lépp lu ma dal ci nattu dal na ku ma gën téeméeri yoon loolu dana doon loo xam ne dana la dimbali bu baax ci nattu ya ay yow julit xamal ne ba tey la nga xam ne mooy àjjana day yonente bi salallahu alayhi wa sallam dañu doon wax ne yàllaan ko clôturé ci ay natt sawara yàllaan ko clôturé ci ay bànneex looloo tax boo bëggee àjjana nekk sa kër waajal na foog nga dajeeg ay nattu amma na jëm sawara ñoom ña ngay xuus ca bànneex ya su ko defee buñ ci génnee sawara lañ jëm yonente bi daañu wax ne xam leen ne ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir adduna day yàlla da ko def kaso julit kaso boo xamee ne nii suñu borom yàlla dana ko fi indil ay nattu looloo tax yow mi nekk ci kaso munoo ñàkk ay nattu munoo am dana neex lépp waaye kaso la boo xam ne boo ci génnee lan moo lay xaar mooy la nga xamee ne nii àjjana joo xam ne soo fa demee suñu borom yàlla nag ne leen léegi i'malu la shi'tum ma shi'tum lépp loo xam ne nii neex na leen def leen ko mbokk nattu dafay baax ci doomu aadama léeg-léeg mu koy dal ba ña nga xam ne nii ñooy nit ñu jëkk ña sax am na ci ñoo xam ne bu ñu saan toog lu yàgg yàgg amuñu natt bu leen dal dañuy bari di tuubaat di toroxlu ci yàlla naan ndax amul loo xam ne ni lu xew la ndax aada yàlla ci jurit mooy léeg-léeg foog ngay war a daje ak la nga xam ne mooy ay natt loolu nag moo tax ba natt bi heure bu ñëwee dalay delloo gannaaw may la nga toroxlu ci sa kanamu boroom amma doomu aadama nekk toujours ci jàmm toujours ci jàmm bu la yàlla dimbilul rek ak dew da lay daal di jege ak sàggante ak rëfle da lay daal di jege moo tax ana ñaat doomu yàlla ñoo dellu gannaaw gannaaw ba leen yàlla tegee ñàkk ak ñàkk ana ñaata ñoo dellu gannaaw gannaaw ba leen yàlla dugale ci accident ana ñaata ñoo dellu gannaaw ba leen yàlla tegee tolof te fi àdduna loolee mbokk kon julit dafa war a bàyyi xel ci loolu mbokk julit la nga xam ne nii moom mooy jullit heure bu natt ñëwee góorgóorlu sa kemtaleel kàttan di baril di tudd yàlla di baril di ñaan yàlla suñu borom yàlla mu ne ama yu ci ama yu jibul muttarra ida daa ana kan mooy ki nga xam ne ku nekk ci natt boo ko woo mu wuy la mooy kenn rek la muy yàlla jalla wa ala kon gannaaw bi nga génnee natt bi ci moom la jógee nga muñ muñ ko rafet wax wax bi sell nga la waaye ñaanal yàlla moomu kese mu teggi la la nga xam ne mooy natt boobee te heure bu ko yàlla tegge it dana la booleel sa pay te dana la booleel la nga xam ne nii mooy la nga xam ne mooy ak xéewal su ko defee mbokk yii da ngay gis ne doomu aadama bi da ciy war a bàyyi xel dana ko dimbali lool ci ay nattu heure boo xam ne nii yaa ngi nekk ci àdduna ngal la waaye na sa xel di dem lu la mën a dal del bànneexal sa xol ci ne lii de yàlla teg na ma ko waaye su ma ko muñee àjjana moomee xaar mbokk àjjana dara melul ne moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama yàlla dana tànn ci julit ñi ki ci gënoon a tar ay natt yu ko yàlla teg ñu dugal ko àjjana génne ko na ko waaw yow ndax bala yàlla bindee ba tey mas nga am nattu mu ne déedéet ba ma yàlla bindee ba tey day musuma am benn nattu bu teg sama kaw ci benn minute bi mu def biir aljanna am naa yonent bi neen dana yàlla dana jël ki ëppoon xéewal ci jaami yàlla yi li ngi noonu buñ ko jëlee dugal sawara génne ko na ko waaw yow ndax bala yàlla bindee ba tey mas ngaa am benn xéewal mu ne abadan ba ma yàlla bindee ba tey musuma am benn xéewal kon benn minute ci àjjana fàtte loolu doomu aadama bi mboole mi natt yi mu amoon ci kaw suuf waaye benn minute ci sawara fàtte loolu doomu aadama mboole mi xéewal yi mu amoon ci kaw suuf loolu tax mbokk julit di war a muñ ba baa muy dajeeg boromam moo tax borom bi subhanahu wa taala ibadu rahman ya ma nga leen wax ne malaaka yi dañuy dajeeg ñoom di leen sargal naan salaamun aleykum lan bi ma sabartum ci muñ gi ngeen muñoon malaaka yi waxuñu leen seen julli ga seen koor ga waaye muñ gi ngeen muñoon loolu it mbokk lañ cay tër dañ cay mujjee xamal ne mbokk muñ day ñetti façon muñ la muñ gi gën a màgg mooy muñ ba def ndigali yàlla yi ñaareelu muñ ba muñ ba bàyyi tere yàlla tere yàlla yi ñetteelu muñ ba nag nga muñ dogali yàlla yi looloo tax xamal ne musiba bi gën a rëy ci musiba mooy musiba bu dal ci sa diine lan la way mbokk julit nga am doom boo xam ne daa xëy paralysé wallahi xamal ne li ko gën a màgg mooy doom bu xëy bàyyi julli doom bu jigéen bu xëy mu riy aw yaramam képp koo xam ne gis nga ko mu xëy di naan sàngara ak carte wallahi bépp natt boo xam ne nattu àdduna la loolee moo ko gën a garaaw loolu moo tax ba da ngay gis lenn ci sunu mag ñi daan yar seen njaboot dañuy wax ne kenn ci góor ñi benn fajar daa dégg kër gi mu dëkkal gi mu dendal ñuy yuuxoo mu ñëw na waaw lu xew mu ne ah dañ ne bàyyi day moo dee mu ne bismillah man dama foogal sax ne daa am ko fi fanaan te julliwul gée bi loolu ngeen di yuuxoo loolee ngir yar seen njaboot xam leen na natt bi gën a rëy mooy nattu diine looloo tax yeneen ci bi alayhi salaam ci ñaanam da doon wax wala tajal musibatana fi diinina galla way doomu aadama dékkul mboole mi natt kaw suuf waaye del moytu ñeel la ak sa njaboot ba natt diine ba ñu dugg ci seen biir looloo gën a nekk musiba bépp musiba loolu kon moo tax ba ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu ñu yàlla nattoo ci suñu diine yàlla bu ñu yàlla nattoo lu ñu attanul lépp loo xamee ni nii nekk na ay nattu yàlla na doon luy far suñuy bakkaar yàlla doon luy yëkkate suñuy daraja yàlla doon lu ñuy jegeel suñu boroom yàlla doon lu ñuy ubbil bunti àjjana yi yàlla doon lu ñuy soril sawara nattu yi nekk ci jurit ñi yépp yàlla na ko yàlla woyeefal ko ci tegg ko ci jàmm nattu yi nekk ci réewu jurit ñi yàlla yàlla woyeefal ko teggil na ko ci jàmm yàlla na yàlla musal ñu ci natt bi dal ci suñu diine di jóge ci ñoo xam ne dañuy réeral suñu ndaw ñi di leen yóbbu ci yoon bu ñu siratul mustaqim yàlla na yàlla ربنا الأب والآفية دفرنك في الدنيا والآخرة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين